leen ay wutal

seen affaire mooy seen miɗen puɗɗi jama duuɓi tati mboy hori gas. ñu ne commencé nañu jàkka ñetti at jàkka bi he judduuji kayta juddu. dara hay dara wiya majji yiyaaka.

maa ngi remercier aussi toute la population Màkka accueil bi ñu ma def ak teraanga gi ma jox maa ngi remercier collaborateurs yi nekk fii ñi ma accompagner pour avoir suñu ndam suñu succès donc euh, maa ngi jox ñëpp seen wàccuwaay ci mag yi fi jóge ak mag yi fi nekkoon ñi nga xam ne ñoom ñoo créé ñaan yi te defuñu fi dara lu bon lu rafet rek lañ fi def donc maa ngi remercier aussi euh, waa Karambaya nga xam ne vraiment sama papa aussi def na fi lu rafet ci ci ñaan yi parce que taalibeem yi bari nañ fi ku xamul Alaaji Sori Ba Jaabi aussi dégg nga turam ah am na lu mu def fii ci biir ñaani moo tax ba ma jógee ñëpp a jóg nit ñi sax ñu ci bari dañu ne politique sax moo tax ñu jóg mais fi ma bokk moo tax ñëpp jël taxaw di ma jàppale. loolu dëgg la wallaahi. donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci loolu. donc di remercier aussi suñu mag suñu xalif général mooy El Hadj Oumou Sanku Diaby. pour très bu njëkk ba mu ngi may soutenir ak di ma ñaanal di nuyu aussi sama mag alaaji Ba Fodé jaabi te gis naa li ma taxawoo ak ay ñaanam maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér amiin yàlla barkeel leen di ñaan eh, di wax aussi man yàgg naa nekk APR di jàppale Macky yàgg naa torop ak mhm. Macky Sall. bokk naa ci ñu ko fal en France en 2019. Mhm. Ah donc ñu ci bari xam nañ ma. mais dama yaakaar aussi sama localité fii nga xam ne fii laa dëkk fii laa cosaanoo fii laa màggee war naa ñëw aussi jàppale leen indi fi sama sama taxawaay. Ah donc looloo tax ma jóg parce que waa Ñaani ñoo ma soxla donc damay toog jàppale leen ñu jàppoo nekk benn di liggéey ensemble. te yàlla dina la jàppale ñaani développé. yéen ñaani dañuy sonn. liggéey ñaani sonn nañu. ah oui sonn nañ de. yoon amul. yoon amul. école yi manqué na fi. classe ban yi amul am na ay école yu ma def. ay ay ay crinting lañ leen defaree. ak ay yu bari ak ay ñax banc gàncax classe yi nekk fa. donc euh, école yi bariwul lycée yi bariwul collège yi bariwul. Mhm. dégg nga dem naa aussi foo xam ne fu bari foo xam ne amuñu courant. donc dëkk yu bari maa ngi yore projet kii euh, samay programme fii donc ñoo xam ne yoruñu courant donc aussi encore dox naa lu bari gis ñoo xam ne amuñu ndox dégg nga amuñu ndox mais programme bi yëpp mu ngi ci sama loxo parce que yooyu yëpp mënuma ko développer fii mais ñaan yi li ñu soxla dafa bari te dañoo war a avancer pour développer waaw hôpital baa ngi nii dégg nga ñu ko fi def amul médecin amul amul amul matériel donc ñun en tant que doomu ñaani en tant que doomu ñaani ñun ñoo war a taxaw dindi li fi nekk parce que buñ taxawul kenn du ko dindi donc il est temps pour que ñu liggéey suñu ñaan yi pour ñaan yi développer donc maa ngi wax yi le président de la République maa ngi koy wax dégg nga maa ngi bëgg a nekk candidate pour la mairie donc voilà bëgg naa nag kàttanu yàlla bu yàlla bu ci yàlla àndee mu choisir ma comme candidat même bu ma fekkul choisir na ma man je serai candidate pour ñaani ñaani yi la ils ont besoin de moi. ah oui ah donc euh, voilà pour mu soutenir sama candidature. donc aussi maa ngi wax aussi responsable politique yi fi nekk ñu soutenir sama candidature.